élage leen jàmm ci xibaar yéen yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo ñu daal dellu ci ginnaaw ba léegi ci wàllu yoon direct info duñu xamal ne maître Assane mu nekk nag avocat élève bi nga xam ne daal tegoon nañ ko loxo ba léegi mu nekk ca kaso ñu doon koy toppee ay kàddu yoo xam ne dañoo jàpp ni mbirum terrorisme ak yu ni mel yéenekaay bi dañu xamal ne maître Assane Dioma Ndiaye kay jamono ji nag moo porte plainte lu toll ci juróom-ñeenti nit yoo xam ne balaa yàgg daañu leen déglu keneen koo xam ne nag balaa yàgg yoon dana ko déglu Vox Populi di xamal ne kay mooy Ousseynou Sy xam ne nag ma nga nekkoon ca Italie waaw da nga xam ne daal dafa yeboon ay xale ci bis bu daal di koy taal yéenekaay bi di xamal nga xam ne nag ñoo nekkee foofee jamono ji dañoo mer ba la tribune yéenekaay di ñu xamal ne kay Ousseynou mbirum jàpp na njiit li nga xam ne nag mooy prestation de serment waaw ñu daal di xool nag ndax Macky Sall moomee ban gouvernement la war a taxawal ndax gouvernement boobee day indi ba fi nekkoon wala sax Macky Sall moomee dana ànd yi nga xam ne daal moo ko desee ci bopp réewum Sénégal am na ay farata yu bëri yoo xam ne nag mandaam bii ko fi desee dina ko jaarale yoon yéen bi di Le Quotidien daa di xëy na ci mbirum parti socialiste gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne daal moom la ñuy jànkonteel ak réeróo gi nga xam ne daal moo amoon ci seen diggante yéen bi dañu xamal ne ndax parti socialiste googee ban yoon la jaar jamono ji jàngoro tuberculose mi ngi sonal réewum Sénégal waaw rawatina nag fi nga xam ne nag moo di banlieue yëpp yéenekaay bi dañu xamal ne feebar boobee daal daanaka Kër Massar ak yëmbal noor ak yëmbal si biir jamono ji ma ngi fay gën a wutlee ñaay docteur Samba Gueye di xamal nag lépp loo xam ne mën nañ ngir gàllankoor boobu jàngoro dinañu ko def